loolu laaj am na inspecteur lu tax. bon xëy sàgganu sénégalais yenn musiba yi du dogal lu ci gën a bëri sàggante doomu aadama yi moo ko waral moo tax nag war ko gàttandu. loolee nag nekk tem bi ñu jagleel bés bu ñu jagleel ci àdduna wërngal képp lu jëm ci wàllum protection la waaye daanaka citoyen sénégalais yu bëri xamuñu ko fii ci Médina nag daanaka kër yu ñu dugg yëpp yu ci bëri si ñoom amuñu extincteur ngir rek bu ay lakk-lakk amee. même kër yu guddi sax am na benn kër bu nekk ci ginnaaw nii. R plus 8 euh, la. Mhm. dugg naa fa mais gisuma ko. république Sénégal moo tàmmul am habitude boobu ay sécurité courant wala tàkk-tàkk nga am ñu kii woon sunu imam bi rek ba këram di lakk tey jii ba ñu woowee sapeur maanaam tey ñoom avant ñuy ñëw fekk nañ ñun jeunesse bi fay nañ lakk bi ndox la ñuy wut ak ay suuf ak yooyu noonu amuñu benn jumtukaay. ñu bëri si ñoom itamit xamuñ sax lu ñuy jëfandikoo wee extincteur ñu war leen a defal ay formation lu jëm ci loolee. te takk-takk bu amul mi ñu xalaat may jëntam njabootam parce que xamul ñu koy fayee. ñu def ay prévention yoo xam ne comme ñu ko xam dëgg. ñëw sensibiliser ci nit ñi. indi benn échantillon expliqué leen wax leen ban njëriñ la am. ci atelier menuisier bi ki ko yore nag moom am na chance ngir am yenn xam-xam jëm ci naka lañuy ñuy jëfandikoo extincteur waaye nag daanaka farataalu ko. extincteur pour début fa la mhm. dafa am bu wax CO2 am à poudre am à eau. waaw am boo xam ne ne tamit pour pour nit la boobu moom en général moom yu si ëpp luñ ko nit ñi di yor bëriwul atelier bi moom yoruma ko seulement lu tax mun la ko expliquer parce que dama dama si doon liggéey ko ci jamono ji nga xamante ne ni lu jëm ci accident ci biir kër yi bëri na lool dafa war nag ngir citoyen bu nekk mën a am ay xam-xam ci wàllum fagaru